dal leen ak jàmm mbokki internet yi kooke di njiitum réew mi di son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw parce que fale tabb ko mu nekk njiitum réew mi wala rek régler li nga xamante ne si ne moo di problème Sénégal yi lu si mel jëm si wàllu ko ak lu ñeel rek seen ko koom gën kaa ñoŋal moom kooke président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw parce que fale nag mu ami ay visite si dëkk kilifa diine yi ginnaaw ba mu ko jëkkee foofee sa Touba ñu daat koy rafetlu lool ak ak doxalin wam fa doxe ak yar bam fa wane wéy nag daal di dem foofee sa Tiwaawan tamit ca dëkk bu sell ba am fa tamit ak wisit moom kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw ba mu nekkee njiitum mu réew ginnaaw rek ba nga ne si ne ñakk fi jiitu woon comme nas ko doon doxalee seen i tànk rek la daal di doxale ba tey rek bàyyiwul boobee benn yoon taxawal rek pour euh, relation euh, kilifa diine yi ak loolee di gouvernement bi nag si noonu rek la demoon ñi nga xamante ne si ren njabootu Cheikh Omar Fouti Tall gi moom kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye amoon fa tamit ak visite yëkkati fa tamit ay kaddu joxe fa tamit ay ndigal yu xamante si na tamit amal nak fa engagement kon nag yeneen kilifa yi defee ñi fi jitu woon noonu tamit la demee tamit suñ mbokku chrétien yi moom kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal fa tamit ak waxtaan bu yaatu tamit jël fa tamit li nga xamante ne si na rek moo di ay digee fëskee nag fa amal tamit foofee suñ mbokki chrétien mu doon lu am solo loolu xamante ne si na rek jamono ji mën na ne ñëpp ñoo koy waxtaane ginnaaw parce que fale tabb rek mu nekk li nga xamante ne si na moo di eh, njiitum réewum Sénégal moom kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye leneen las kay gën di xaare jamono ji askan wi ñu si bëree bëri dëkk sa bàyyi xel dëkk sa moo di nag jëm si wàllu ko dund gu seer gi nga xamante ne si na rek jamono ji ñoom ak priorité las ko defoon moom kookee di président ak ki nga xamante ne si ne moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw rek ba mu jafee ay tànki jàmm jublu ak si kër kilifa diine yi kon nag leneen las koy xaar jëm si wàllu dund gi moo xam ceeb bi wa sa diwlin ka soble sa loolu lépp rek jaaskan wi jamono jii ña ngi ko say bàyyi xel bu baax a baax moom ku ko di président Bassirou Diomaye Diakhar na sax conseil des ministres bii ñu génn rek joxool nay dëggal pour rek ñi nga xamante ne si ne moo day jawri ñoom ñu liggéey rek balaa la 15 mai bii si wàllu dundi gi rek ñu daal fexee rek naka la ñuy def ginnaaw sax ba mu gisee woon ak li nga moo di secteur privé bi ñoo war si wàllu dund gi moom kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon nag xel ma ngay dal na rek kon kookee di président Diomaye Diakhar fay jub ak jubal ak jubbanti ga mu nekkee xel ma ngay am yaakaar na rek kon fan yi nu dëgmal rek xëy na ak wàññiteef mën na ska seen rek si li nga xamante ne si moo di euh, dund gu seer gi lool si Sénégal yi lool loolu lu nu bëgg la te Sénégal yi tamit lu nu soxla la euh, jamono jile